أنقذي يا لي من دلالة وبالألال قل سرايا خني تابا قل الكتابا واقبل متابا يا سسرايا قني تابا قل الكتابا واقبل متابا يا سسرائي asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ñun di ñu seetaan noo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balo di leen ko baal di am mbégte di yëkkatiwaat ay kàddu fii bu ngeen jàkkaarloo ak jataay bii nga xamante ni bii at mu jot dana am benn yoon ci at mi muy jataayub fàttaliku waaye jataayub ñaan waaye jataayub sant kan lañ koy defal moo di sëriñ Daam ture moom sëriñ Tubaa Xaadimu Rasuul bis boobu nag moo war a dëgg malaat sëtam bu baax bii di Alaaji Niis Touré ànd ko ak njaboot gi yëpp fas yéene ko amalaat le 10 mars di amee ci kër ga nga xam ne moo nekk ca Sura bis boobu nag moo tax ñu toogaat tey jii di ko def nag ci ndigalul ki fi toogal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ñuy ñaan sun borom yàggal ko fi lool te doole ak wéram waaye di ko def nag ci kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Souhaïbou waaye nag ci njiitul Serigne Abdou Samad mi nga xamante ne bii mooy jëwriñu kër gi loolu moo tax Serigne Niis toog ay ay rakam toog ak magi taalibe yi toog ak njaboot gi yëpp ak ay xaritam fas yéene woote bis boobu ki ñuy njëkk a jox kàddu gi moo di Serigne Bàcc Mbay mi nga xam ne mooy wax ci turu donga yëpp su daaneelee danañ jox soxna Nday Seen mi wax ci turu jigéen ñi su noppee nag Serigne Khadim Touré kennal Serigne Touba mooy wax ci turu Alaaji Niis su ko defee ñun ñëpp ñu maase déglu Serigne Bàcc Mbay mi nga xam ne mooy wax ci turu dongo yi. barke sëñ Dame Touré bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi waat sunu kaddu ci turu Serigne Niis Touré ñaan mu yàgg fa lool te ànd ak wér ñu ngi yëkkati sunu kaddu nag jëmale ko ci ñi nga xam ne ji ñooy daayira yi Serigne bi nee na mi ngi woo Serigne Ousseynou Fall. ca Pëleen Dëdd ak waa Ngebal waa Pëleen Dëdd gépp nee na mi ngi woo sëriñ Bàcci Caam ca Bayax ak waa Bayax gépp sëriñ Aliou Tine Fisel ak waa Fisel Mbaadaan gépp nee na mi ngi woo sëriñ Ndaam Deer Gëti Omar ak tundi euh, tundi Kajoor wépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Maam Góor Badiane ak waa Mbadiane nen gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Fall Ngébal ak waa Ngébal gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Ousmane Touré ca Touré Ngën ak waa Touré Ngën gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Baddo Mbay ca Sabb ak waa tund Romnaan gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo Samba Fall Argentine sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal Mortara Fall Argentine di ko yëgal soxna Ayda Gueye daayira Maam Jaara Cotonou Bénin ak sëriñ Mamour Dramé Touba Lomé di di ko yëgal sëriñ Mourtala Guèye ca Touba Niger di ko yëgal sëriñ Fall di ko di ko di ko yëgal sëriñ Fall mais nekk ca euh, euh, Burkina Faso di ko yëgal bokki taalibe yëpp bàyyilu kenn bàyyilu fenn bàyyiwul ñenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bokki jullit yi fi bokki taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di yëkkati sama kàddu ci ndigalu Alaaji Sëñ Touré di yëkkati sama kàddu ci. ndigalul jigéen ñi kàddu jigéen ñi sëti sëñ Dame Touré ak soxna yeeg taalibe ñëpp rek di woote bés bu mag muy sunu bés di bésub sëñ Dame Touré bés bi nag di bés bu rëy lool ci nun ñu doon ko waajal ba yàlla dogal ma agsi ci jàmm ñu fas yéene ko waajal di woo jigéen ñi daayira Cheikh Aliou Touré baari kàlla bi noo ngi leen di woo buñ tuddee soxna Mati Touré moom sëñ Bàcc Touré tudd nañ ñëpp di woo daayiratul daaru salaam sow bu kennal sëñ Xaadim Touré kennal sëriñ tubaa di woo daayira waa Mbusoobe bi sëñ Omar Mbay jiite jigéen ñi maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn di woo daayira soxna maam Jaara Mbàkke ba ca koñ ba Touba Soura te mu ànd kook soxna Ami Mbay di woo daayira soxna Xaar Ndaw ak jigéen ñi ñëpp rek di leen soññ di leen soññ ci li ñu weesu di leen sant ci li nu weesu te di leen soññ ci li nu dëgmal nu defe ko nan ko daan defe ndax wax dëgg yàlla jàmbaalañ ci lool daayira bi nga xam ne mooy daayira bi sëñ Dame Touré ba ca biir kër ga nag te sët jiite ko maa ngi koy jiite soxna Ndeye ture muy jàmbaar lool ci daayira bi taxaw ci lool sonn ci lool nu ànd ko ak moom ànd ko sëti sëñ Dame Touré yëpp di woo daayira Daaru Salaam Sow di woo jigéen ñëpp bàyyiwun kenn di woo mbokk yi di woo xarit yi di woo am di jàmm yi di woo képp ku yaakaar sëñ Dame Touré wala nga yaakaar Cheikh Aliou Touré ngay sët ngay taalibe ngay lépp wonan la bàyyiwunu kenn di woo daayira bu mbar soxna maam Bousso Touré jiita ko di woo daayira bu ndaam soxna Khady Touré jiita ko bàyyiwunu kenn ñu ngi woo ñëpp di ñaanal sëñ bi mu yàgg koo taxawe te nu yàgg ko ànd ak moom kàttanu yàlla yoon si sëriñ tubaa barkeb sëñ yàlla nañ tàmbalee bisimilah rahmaani rahiim àggalee ko alhamdulilah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di am mbégte di teewaat ci kanamu suñu kilifa alhaaji sëriñ ministre Touré xalifa Serigne bu Touré moo am mbégte di leen fàttali bis boo xam ni xam na ni kenn ci yéen fàttewu ko waaye alxuraan moo ñu santoon di leen fàttalekat ndax fàttale dina jëriñ ginnaaw bu mu ci amee ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi ni ñaanal mu yàgg fu ci ànd ak am ci ndigalul sëriñ Ibrahima Touré xalifa sëriñ Aliou Touré barikàlla am ci ndigalul sëriñ Ñamra Touré xalifa sëriñ Daam Touré ci kilifteefu sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Soxna bi mu buntam ci kër sëriñ Soxna bu ci sëriñ Touba tamat ko sëkk sëriñ bi nee mi ngi jiital woote bi ak fàttali gi daara kaamil alxuraan yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew yëpp di ñaan it niñ ko daan defee rek lim buñ ci jàngoon jotal ko ko wala jotal ko njaboot gi nee na it mi ngi ci euh, beral ab woote ki nga xam ni Serigne tubaa ko tànn di ko liggéeyloo ba tax ku fi nekkal Serigne tubaa mu doy la tamu Cheikh Mahamadul Bachir Mbacke mu Cheikh Abdoul Xaadar di sëriñam di xaritam di wëllëreem te seen diggante yàgg lool te ñëpp xam ko di ci beral ab woote it Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Souhaïbou waaye di ci beral ab woote it Serigne Fallilou Serigne Souhaïbou di ci beral ab woote it euh, Serigne Bachirou Mbacke moom Serigne Ba di ci beral ab woote it euh, Serigne loo xalifa sëriñ Maxtaar Bintoloo ji beral woote it sëriñ Ibrahima Fall ak njabootu sëriñ Abdul Karim Fall gépp euh, di ko yëgal mboolem njaboot suñ Tuubaa gi yëpp rek di ko yëgal it euh, ci njiitul fédération sëriñ Aliou Touré Barikalla ci njiitul sëriñ Xaadim Touré di ko yëgal mboolem njaboot suñu Aliou Touré gépp ak fuñ ñu mën nekk euh, di ci beral ab woote it monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak soxnaam soxna Marème fay Sall. ak premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne du ci beral ab woote it ministre Ali Ngouille Ndiaye ministre l'intérieur du ci beral ab woote it euh, ministre Omar Youm euh, directeur cabinet de Macky Sall ci beral ab woote it euh, gouverneur de la région du ci it Serigne Abdou Lahad Diakhaté chef du village bu Touba waaye du ci beral ab woote it Serigne Abdou Ka maire bu Touba ci beral ab woote Serigne Khadim Mbacké moom Serigne Khadim Awa waaye di ci beral ab woote it euh, sëriñ sëriñ Abdoulahat Mbacke moom sëriñ Souhaïbou ak mboolem njaboot suñu Tuubaa yëpp rek euh, di di soññaat ci taxawaay bi nga xam ne daan ko taxawee ci bis bi rawat na taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci ci kër gi te buñ waxee mën a wax ku mel ne aji aji soxna say ak mboolem ñi nekk ci ginnaawam yëpp ñu takku na ñaan takkoo rek euh, taxaw noonu te teel ko waajal te ñi nga xam ñu jógee fu sori di ñëw ñu ñaan suñ ñu ñëw ci jàmm. fekk fi jàmm ñu magal ko ci jàmm barke Cheikhul Khadim ñoo ngi waaw fàttali bis bi it di nekk euh, le 10 mars ca weer wee la ñu jëm ñu ngi koy soññi bu baax euh, di ci beral ak woote it euh, xaritam monsieur Moustapha Cissé Lo premier vice président assemblée nationale di ko yëgal it maître Madické Niang di ko yëgal it président Idrissa Seck di fa ngeen fàttali date bi mu ngi nekk 10 mars. ci kër gu mag gi ci Touba Soura ci wetu jumaa ji incha allah. jërëjëf bokki jullit yi jërëjëf bokki taalibe yi ñoo jot a dégg woote baa ngi noonu bisub sëriñ Dame ture borom bari kàlla Serigne Touba mag ñi rek nañ joxal gone yi kon day mel ne xéewal gone yëpp bari kàllaam joojee moo ko fi andi ñu ñaan sun borom mu fayal ñu ko. loolu moo tax sëtam bu baax bii de alaaji Nis Touré at mu jot mu am bis boo xam ne da ciy fàttaliku cantam googee mu daan def Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy jiital ci woote bi nag ki yàlla teg ci bopp yoonu murit te koy ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu dolli wéram mu di Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mahamadul Bachir waaye di ci teg nag Serigne Abdou Samad mi nga xam ne mooy buntam ci Serigne Touba moom Serigne Souhaïbou Serigne Bachiru Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy rek kaddu Serigne bi waaye Serigne Sidi Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad jëwriñu yoon wi Serigne Ibrahima Touré xalifa Serigne Aliou Touré Serigne Ñomre Touré xalifa Serigne Dame Touré Alaaji Niis Touré xalifa Serigne Souhaïbou Touré ak rakkam yëpp nag mu di ko yëgal nag sëriñ Abo Mbacke xalifa Cheikh Mahamadul Fadal sëriñ Cheikh Mbacke xalifa Cheikh Abdoul Khadir di ko yëgal sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Souhaïbou sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir sëriñ Fallou Mbacke moom Cheikh Mahamadou Mourtala waaye di ko yëgal sëriñ Moustapha Mbacke moom Alhaji Mouhamadou Lamine Baara sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Abdoul Karam sëriñ Abbas Mbacke xalifa maam Thierno borom Daarul Moxti sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur xalifa maam Mor Diara sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Massamba sëriñ Mor Fati Mbacke xalifa mam Cheikh Anta sëriñ maam Mor Mbacke xalifa sëriñ Balla Coro ak mbooleem njabootug sëriñ Mbacke Mor Anta Sali gépp di ko yëgal it njabootug sëriñ Ibrahima Mbacke Mbacke Kajoor di ko yëgal sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Baara xalifa sëriñ Sidi Muxtaar Mbacke di ko yëgal sëriñ maam Mor sëriñ May Mbacke xalifa sëriñ Cheikh May di ko yëgal sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général de Baye ak mbooleem seexi sëriñ Touba yi di ko yëgal sëriñ Abdou Latif xalifa sëriñ Issa Serigne Sidi Sarr xalifa Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Serigne Sidi Jenn xalifa Serigne Naar Jenn Serigne Baara Touré xalifa Serigne Mor Fati Touré Madina Serigne Babacar Ndiaye Xaadimu Rasul Taïf Serigne Abdou Touré xalifa Serigne Aliou Mati Touré Seew Serigne Abo Touré xalifa Serigne Abdoul Karim Touré Serigne Jibril Touré Touba Belal Serigne Mbaye Fall xalifa Serigne Modou Fall Xonn Baye Cheikh Aliou Touré xalifa Serigne Mbacke Touré Seew Serigne Cheikh Bey xalifa Serigne Mor Bey sëriñ Abdou Latif Diène xalifa sëriñ jenn Diène di ko yëgal sëriñ Fallou Bousso xalifa sëriñ Mbacke Kanni sëriñ Omar Bousso xalifa sëriñ Mbacke Bousso sëriñ Moudou Mamoun Bousso imam Touba sëriñ Abdourahmane ñan xalifa sëriñ Baara Niang seriñ Khalil sal xalifa sëriñ Baye sëriñ Sarr di ko yëgal sëriñ Abdoulahi Diouf xalifa sëriñ Thierno Diouf Lambaye ak sëriñ Soy bu Diouf ak mbooleem seex yi aju ci kër sëriñ Soy bu yëpp nee na wul ken di ko yëgal sëriñ Moustapha Fall Mbar moom sëriñ Cheikh Oumy xalifa sëriñ Talla Seck Jamweeli sëriñ Modou Mbacke si xalifa sëriñ Moustapha si sëriñ Mbay Baas soldaaru sëriñ Touba Mbacke Baas sëriñ Mbacke Ka xalifa sëriñ Moussa Ka Thielly Mbay Guèye xalifa sëriñ Mabey Guèye sëriñ Ahmadou Diouf xalifa sëriñ Modou Diouf Lambaay sëriñ Modou Mbacke xalifa sëriñ Cheikhou Salam Mbacke ñu ngi koy yëgal itam sëriñ Galas Ndiaye xalifa sëriñ Mbay Ndiaye Banji sëriñ Thierno Diaw xalifa sëriñ Mut Diaw Paxa ala sëriñ alhaaji fall xalifa sëriñ Thierno fall xonn sëriñ Fallou Silla xalifa sëriñ Makhtar Silla di ko yëgalit sëriñ Moustapha Basirou Lo di xaritam di kenn ci kër gi waaye di ko yëgal nag njabootug sëriñ Sohaybu bu jigéen gi ak njabootu Cheikh Abdoul gi bay wul kenn ba ci njabootug Cheikh Salihu gi soxna may abo bintu sëriñ Sohaybu soxna maam Xari Mbàkke bintu Cheikh Abdoul Ahad soxna maam Jeng Mbàkke bintu sëriñ Sohaybu soxna maam Marème bintu sëriñ Sohaybu soxna ummi Mbàkke bintu sëriñ Mouhamadul Fadal soxna nday Sooda Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadou Mourtala soxna maam Faati Mbàkke Naawel bintu Serigne Souhaïbou soxna Muslim Mbàkke bintu Serigne Souhaïbou soxna maam Mati Mbàkke bintu Cheikh Mamadul Fadal di ko yëgal soxna maam Faati bintu Serigne Souhaïbou kër Serigne Modou Habib soxna Muhsinatu bintu Cheikh Abdoul Ahad soxna maam Isa Mbàkke ahlu Kafe soxna bintu Mbàkke bintu Cheikh Mamadul Fadal soxna Ayda Bousso bintu soxna Khadi Khadimu Rasoul soxna Oumy Fall bintu Alaaji Abdoul Karim Fall soxna Kiné Diop moom Serigne Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Soda moom Cheikh Mamadul Basir nee na bàyyiwul mbooleem sëti Serigne Touba di ko yëgal itam waa Kansul Muhtadin di soxna Astu Mbàkke moom Serigne Abdoulahi ak mbooleem ñi mu jaboote ñëpp di ko yëgal mbooleem daayira yi nekk ci senegal nag rawatina daayira yi nekk ci biir Touba mi ngi ko yëgal daayira Mawaahibu Naafi waa kër Serigne Daam Touré daayira Miftahul Muna waa kër Serigne Souhaïbou Touré daayira Xidmatul Xadim kër Serigne Souhaïbou Touré daayira Borom Touba jërëjëf ci njiitul Serigne moor daayira ahlu kennal Serigne Touba ci njiitul Serigne Xaadim Touré kennal Serigne Touba daayira Oustaz Mbay Touba maçon Mbusoobe section Touba fédération Cheikh Aliou Touré barikalla ci njiital Serigne Saliou Samb ak Serigne Ale Niang Serigne Nis daal nee na mi ngi ko yëgal mbooleem koo xamante ne bii Serigne Touba moo joxoon sa maam ñaag ba mu yor nee na bis bii mi ngi la ko yëgal di ñaan ñëpp ñu àndandoo ak moom sant le ko Serigne Touba ci bis boobu nga xam ne ci la Serigne Dame Touré daan sant Serigne Touba Xaadim Rasul bàyyee ko njaboot gi muy jëwriñ ji di ko taxawu ànd ko kilifaam yëpp nee na mi ngi ñaan bis booba ku fa teew yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo adduna ak jooj alaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu